الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عا- ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين توكسي توكسي لها عابدين لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أما أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم fan la nee na nag juróom-ñaar fukk juróom-ñeent juróom-ñaar fukk juróom-ñeent wala xad atayna jox nanu nun yàlla ibrahima ibrahima rushdahu njubam min qablu ci jëkkalaata moo jot mag bukk naa nekk nanu xaalimiina bi bi annahu ahlun li dalik id xaala mooy ba waxee laa bi ñeel baayam wa qawmi ak nitam maa haadi tamasil waay lan mooy yi lay nettali xërëm létti yi nga xam ni antum yéen aakifoona way taqoo ngeen ak aakifoona way saxoo ngeen lahaa ñeel xërëm yi waay xaaloo ñu ni ñu dee waajat naa fekk nanu abaana sunu baay aabina ñuy jaamu lahaa ñeel xërëm yi fax sa dinaa noroy biim ci ñoom rek xaal ma lahum ñeel leen laxar kuntum nekk ngeen antum yéen wa abaaukum ak seen bàyyi yu jaamu xërëm yee fi dalaalin ci cànkute mu bin gu daji bir xaaloo ñu ni ko ajitanaa ndax da ngay dikkenu bil xaq ci dëgg xaw laka haaga waay am anta ndax wala boog yow laaibun aji fo nga meen laa bokk ci way foña dañ ko fay nag ko teg xaala mu ne ba li fi ne kay rabbukum sama borom nga xam ne mooy yeewee jaamu rabbu samawaati mooy aji moom mooy borom asamaan juróom-ñaar wala di suuf juróom-ñaar la di ba nga xam ni fatarahunna bind na mu leen wa ana naka man shahidun aji seede laa mina shahidina bokk ci way seede laa dalikum ci loolu seen wa taallahi dana ma giñ yàlla la akidanna danaa farlu te ngiñ la ba may giñ asnaamakum alquran seen xërëm yooyu la baada an tuwalloo ci ba ngeen dégg ba dëddaat mut bii ni ngeen di may dëdd fa jaalahum dana mujj na xër xërëm ya baada zahabim jisaasan ñu di ŋóobit jisaasan ñu di puñaxat jisaasan ñu di way toj jisa jisaasan ñu di way mokk illa kabiran nderee aji màgg lahum ñeen la nga xam ne alaqal faasa fi onoq yi ba mu ko muñu xee ba àggal nag dafa bàyyi xërëm bu mag baa mag fab jaas yi nga xam ne ma nu mu tuuti semi yo ma doon muñu xee xërëm ya gàll ko nag ci kaw xër mu baat bu mag ba nag ba mu ko defee nag laxaloo mbestee ñoom nag yar joxoona dañ dellu li jëm ci moom xaalu ñu wax na bañ ganoo bañ jógee nag bañ jëlu see nag ci kër ga gis yoon si yàlla ibrahima def la mu def ba noppi dem ca xërëm ya toj yëpp ba yëpp ma kurub mu fab bu mag ba nag fab si mi ñëw ko doon toje gàll ko ci kawam ba mu del see nag xaalu ñu nag gannaaw da jax ba ñu del see man ana kan faal def na haada lii bi alihatina ci sunu yàlla yi indoon naka kooka dewaay la zalimun aji tooñ la mi na zalim bokk ci way tooñ xaala wax leen seen ñeel leen ñu dewaay samiana dégg nanu falan taf ak cam boo xam ni yadkuruhum dana ayibal leen yu xaal def loo ñel cam sa nag ibrahimu xaala ñu ne ko faatu na ngeen ma dikkee bi ibrahim bi ci ibrahima ala ayu naasi ci mu ni dàng dàngaaral ci bëti nit ñi ñëpp xool ko zahiran mi aji feeñ la alloom mbeste ñoom yashudoon yu seega ni andiman failu moo def jëf ji xaaloo ñu wax nag loo ñeel ko baa di diyaan ci gannaaw bañ ko indee ni ko anta ndax yow waay faalta yaa def haadaa lii bi aalihatinaa ci sunu yàlla yi yaa ibrahima yow ibrahima xaaloo ibrahima saakira an fi alihi bal waay li fi nekk faaloo jëf na ko kabiruhum aji màgg seen haadi kii fasaluhum laaj leen ko waay an fa ilihi in kaanu nekk na yéen ci xonde way tudd yéen kii xéer bu mag bi moo def li mu def laaj leen xéer man sama yoon nekku ci ah ba mu ko defee nag nga teg farjoxoo farajoxoo nag tey fa rajaw ñu dellu nag ila anfusihim jëm ci xalam ak seen bakkan fa xaala ñu wax li anfusihim innakum naka yéen antu naka naka ñun innakum naka yéen ba teg antum yéen zaaliman way tooñ kat bi ibadatikum ndax ku du ma ku ku du mën a wax na ngeen koy def muy seen kilifa ak di seen yàlla comme moo mën na maa tontu su ma nukki soo nag ñu jàpp nag mi ne laaj sukkee ci yàlla ala ruusihim ci seen baat yooyu ruddu ila kufrihim wa xaaloo ñu wax ni wallahi laqad alimta xam nga ni maa haulaay déet kii kat déet kii yéen ko xone muy tudd fekkee wa taaba nabi sualim nag ibrahima da nga nu wax ni laaj sëriñ bu mag bi te xam nga ni mu mën la wax xaala ma wax ni afa taabu doonu lu tax ngeen di jaamu maa koo xam ni laa yanfaukum du mu jëriñ leen shay'an dala ci wërsëg wala yadulukum du lor leen bimu de lay wal si yàlla waay uffin mbas usfin toskara ñeen leen uffin li kii di wax may may may mbay mbërës ak toskara de ñeel la uffin mbërës ñeel la lakum ñeel leen walima ak yaaya taabu da ngeen ko jaamu min dul lay wal si yàlla afala tàqaloo na ndax du ngeen jëfandikoo seen xel ndax am nañu xel kay dañ koo jëfandikoowul lu wax foofu nag war a del xadis ana rasul sallallahu alayhi wasallam waaw masula wax lu amul ibrahima ne rey ci ñetti yëf min ha fi datillahi qawluhu wa inni saqimun damaa feebar te booba dara jotu ko ak waxum ni kabiruhum haada moo ko def te booba waa ji mënul dara bay def dara ak wax ji ma far haada uxti si fekk muy jabaram waaw maanaam wax joo xam ne melo mën nañ koy meloo kan wax lu amul la ndere yi la ñetti ñu ne baati ñett yi inni saqimun araada saqimul qalbi rek min dalalatikum sama xol daal feebar na ngir sànkute gi ñu sànku faaloo wa def na kabiruhum haada tabkiitun li qaw bii rek aha leen kukum loo rek wa haada uxti fi diini sama mbokk la ci diine ak ak bind ak yëpp fa haadi l alfaadu nag sadaqa fi nafsiha laysa fiha kadibun askay aslan ah ah fi datillahi innahu min ajli xayratihi rek fiir gi allah ci yàlla rek ñetteel bi moom xirati ala zawjati kii da ko fiir ci yàlla kii muy fiir ak jabaram rek mu ngoog ko kon kon fenul ko teg nee na xaaloo ñu wax nag ni xarriquhu na ngeen lakk ibrahima wansuru te ngeen dimbale aliyatakum seen yàlla yi in kuntum leen nekk ngeen faa'iliin di way def loolu le ah wadre moon naare fi jami awsaqo ibrahima wa jaalu fi min jamiq tey mu ñu sànni ko nag fi naari safara qaala taala xul naa wax nanu yaa naaru yow safara wi koo ni nekkal badan di sedd wa salaaman ak mucc ala ibrahima boo xooni baddan rek wa salaaman yaa naaru koo ni baddan te waxul wa salaaman ala ibrahima benn safara du tàkk ci àdduna wala defe ne baddan wa salaaman moo tax ñu ne noonu bi nga xam ni noonu bi nga xam ni loo loo lu la loo dal moo la ko teg te bala ngaa bala ngaa njam wooyi ko noonu boo xam ne loolu dal moo la ko teg te bala ngaa njam woo noonu bi mooy lan safara bu ko gi tàkkoon ba jeex takk kenn amul foo dugg ba jant bee suñu naa indi waaye lu ñu toggee añ bi waay wala lu ñu toggee reer bi waay nee na ba du waaw waaw ba salaamaaleykum Ibrahima kon kenn du sedd kenn du def dara ma tamit sa ba bardan wa salaaman al jam ala Ibrahima da teg ndax li lakke li lakke mbindeef la ci biir safara yàllaa ko naan lakkal mu soog a lakk moo tax xaasinu safara bëkk néegu safara du lakk ndax li war a lakk ci safara yi kenn joxu ko ndigal mu lakk ko moo tax mu dugg ci biir divisité di xool néeg yi ba xam kii dugal na ko fu ñu ko war a dugal dara du ko dal. nee na nag wara doon nam nañu nag bii ci ibrahima xëy dan pexe tamay lakk ga fa jaalnaahum ñu mujjal leen laxsarina ñu di way perte fi maraddihim wan na jay naa musal nanu lootul loot ibnu axi haaroona ila abdi jëm ci suuf sa leti ba nga xam ni baarak naa barkeel nañu fiyaa ci suuf sa lil aalamiina ñël mbindee fi ndax garab yu bari ya ak dex yu bari ya fa tabaarakallahu ak yaa jaay dëkk ba wahab naa may nanu lahoo ñeel ibrahima isxaqa isxaqa wa yaqooba yaqoob naafilatan mu ndolli ci lu ñu laaj la wal waladu wal walid ku leen képp kenn ci ñoom doom jàkk mu jur jaal naa def na ko nu yàlla saalihiina mbokk ci wuyutu ma nekk leen ab yonant wa jaal naahum def nañ leen ba tey ay immatu ñuy roy waay yow doom ñuy gindi nit ña di am naa ci sunu mbiru diine wa awxay naa wax yu noonu ili jëm ci ñoom fi alal xayraat yi jëm fi yiw yi wa iqaama salaat yi ak taxaw julli juróom wa itaay zakaat yi ak jooxe asaka bi an tafala wa tuqaama wa tuutaa minhum wa kaanoo nekkoo nanu lanaa ñeel nu aabin damay jaamu wa ba tey yón nañu loosoon loot wa jox nañu loosoon loot atey naaw jox nañu ko xukuman atte boo xam ni day teqale ñaari wuy xuloo wa ilman ak xam-xam boo xam ne ci gindee ñu mu nekkal wa najjaynaahu musal nañu ko itam da nga day minal qaryati ca dëkk ba te ci ba nga xam ni kaana nekkoon na te amal di ca jëf alxabaaya si jëf yu bon yee ci ma ñuy loot wa ramiya bil bundux wala ab bi tuyóor ba xeer dalik inum naka ñoom daal kaanooy nekkoon nañu xaw ma sëw in di ñu ñu ñaaw teefug jëf faasiqi na ñëway génn topp waan xal naahu nu xaraf ko nun yàlla fii rahmatina ci sunu yërmande te mooy mësul ko mësul ca ñooñam innahu naka moom saalihun aji yiw la mina saalihin bokk ci way yiw ña wa na nga fàttali sëñ ni ba tey nooxan yonte yàlla noox id naadaa ba mu wooyee ala qawmihi rabbi laa tatafaddan min qabli si jëkk ibrahima ak loot fa sajam naa nu yuloo ñeel ko fa najee naahu nu musal ko waa lohoo ak ñooñam ca gaal ga menatkat bi ci njàqare ga tamay lab ga aladim raji màgg wa nasarnaahu nu dimbale ko nun yàlla min al qawmi ci nit ña li dina gaa ñaaña tëdda boo weddi wananu bi ayatina suñu kéemaan allah yasulu ilayhi bi suin inoom naka ñoom daal kaanoo nekkoon nañu xawma soo in di nit ñu ñaaw tefu jëf fa axraahum fa axraqnaahum ñu labal leen ajmaina boole seen wa su na nga fàtte suñu ni ba tey muhammad daawooda daawooda wa suleymaana ak yonte yàlla suleymaan is yaxkumaani ba nga xam ne attew nañ la ñoom ñaar fil xar si ca mbay ma is nafasat ba ruuree fii ca mbay ma xanamul qawmi gàttun ña wa kaana nekk na wa kunaa nekkoon nanu shahidiina di way seede li xukmihim di seen atte boobale xaala daawuda sa xarsi waqaabil waxaalu sama tafa bay doreha ah loo teg nee na xasul xal liqi sa rek jamal foofu tuuti ma dégg dañoo ñoom ñaar dañoo tabbi ci daawuda alayhi salaatu wasalaam kenn ki di borom mbéy kenn ki di borom gàtt yi doona dugal na ay ay gàttam ci guddi sama tool ba ruuroo na waaw yàq na ko yëpp te dara desutu ca mu ne ko kon na nga dog jor raxaabal xanam yëpp ci mbay mi mu fayee ko gàtt yi baat baatu gàtt yi ñoom nañu génne nag ci li leen daawuda atte wa ñu romb Suleymaan nag boobu fukki at ak benn dong la am waaw waaye yéen nañ leen atte waay ñu wax ko nag li ngeen xam ne moom la leen papaam atte Souleymane ni ko la wulitu amri la wulitu amrukuma ah la xadati bi xeyri haadi de su fekkoon dañ ma joxe woon ndigal ni ma naa atte dana atte lu dul li sama papa atte de waaw fa daaw Souleymane bi xaqi bu nu nubuwati wal ubuwati xamal ni bi lazi huwa arfaqu bil fariqayn ci sa àq li ma la jur ak nubuwa gi nag ma sol li nga xam ne moo gën a jàppandi ci diggante ñaar ñi doon xuloo li saabil xas waaw yartafa bi labaniha wa suufiha waaw waaw ma ngoog sa li saabil xas kooku xam nga moo gën a jaadu waaw waaw ah akri ah li saaxibihi kon na nga jël gàtt yi di lekk di naan ci soow mi kënt mi nga di ci jëriñoo ba mbay ma ñu bàyyi ba mu mel na mu meloon kii continuer mbayam kii ñu yóbbu ko gàtt mu dem waaw waaw naqa doykat askay bokk na ba tey atti daawlu suleyman alayhi salaam ibrataani maahuma ibnahuma jaa zibu fa zahaba bibni ahadihima fa qaal li sahibatiha innama zahaba bibnika wa qaal uxra innama zahaba bibniki ñu dem na ca daaw di laaj ko nag ñoom ñu muy xëccoo doom joojee Suleymaan ba mu fabee mbir mi yàlla ko ca ku makka ni ko yaa ko yelloo ñu doon baat Suleymaan ñu wax ko ñoom ñaar nu mu ne wa Ibrahima Suleymaan ni ko ne comme noonu la indi leen ma paaka bu ko defee ma dagg xale ba ci digg bi nga yóbbu genn wàll kii yóbbu genn wàll mhm xale ba ni kon nag laa nafaal yarxamaku allah man de man de nanguwuma ko kon nag ba nag bàyyi naa ko moom aha ndax lu li sugra ma ngoog ndax ki bañ ni bu bu- nañ ko rey moomu ko ki nangu ñu rey moomul ki ni buñ ko rey moo ko moom mu daal di ko jox ko ko moom kay nee nag id yaxkuma ba ma attee fi xaasi ca mbay ma is nafasat ba ruuree fii ca mbay ma xanamul qawmi gàttu nit ña wa kunna nekkoon nanu shahidin daway seede li xukmim seen atte fa fahamnaaha nu déggal Souleymane ak Souleymane jox ko na waxyu xamal ko lu bàyyam xamul wa aataynaahu jox nanu nag jox nañu ko xukman atte wa ilman ak xam-xam ku leen képp bi ci ñoom ñaar wa saxar naa tàggatal nanu maa daawooda ànd ak daawooda jibaala doj ya yu sabbix na ñuy sabbaa wa tayr ak janaaw ya wukku naa nekk nanu faailin di jëf ko rek ci sunu may rek wa allam naa xamal nañ ko ba tey sanaata laboosin xaral ak koŋ ndax dafa am benn bés mu bàyyi ba guddi moom yoon yàlla daawooda mu sol yëre yu màggat dem ca nguur ga di laaj nit ñi mu yeen na ngeen def ak seen buur bi waaye ñu ne ah ñu dee sunu buur bi baax na lool waaye li yàq li ko yàq daal lekk baytul maal rek àll baytul maal bi muy dund rek ko yàq mu dem ci keneen nekk waaye lu ngeen xam ci seen buur bi waay seen borom dëkk bi waaye mu ne ah sunu borom dëkk bi de baax na lool waaye dund gi muy dund àll baytul maal rek ko yàq ba mu yàlla ne yàlla na yàlla na ma may métier moo xam ni danaa ko xam di ci liggéey di ci lekk te bàyyi fi baytul maal ci la ko yàlla xamalee nag wañ mooy mooy bëgg a jàng loo dem borom ruuxul ma anee waaye du fii doo teg ah waaw waaw maama ñeer meew ñaari góor aha ma ngoog waaw illa annahu yaakulu min baytil maal waaw fa saala allah an yarzaqahu min kasbihi yàlla day noyal bañ nag minu doroam bu bukkoon yeeg waaw ka annahu tiinun fi yadihi rek moom kay bu mu ci laal moom day mel ni rek hey dara lu mu ci laal rek daal di mel ni mu sooy rek waalam naa xam ne ko sonaata la boosin lakum ñeel leen li naxsinakum ngir ñu ñoŋal leen min baasikum ci seen xar-xari xare ànd ak seen ñoom faalantum ndax yéen way makka shaakiroon way ngeen sant ngeen yàlla ci loolu waay wa tàggatal nañu ba tey lu suleymaan ñeel suleymaan arriixa jalaw aasifatan lu nekkum da di rijji tëjri muy daw nag bi ëmri ci ndigal la boroomam ilaa dañ suuf leti ba nga xam ne barak naa barke lanu fiyaa ci suuf se mooy Shaam wukku naa nekkoon nanu aalimin way xam bi kulli seen ci lépp lëf wa tàggatal nañu ba tey waaw waaw njanaaw yëpp tax ko ànd ak moom jinneeg nit ak ñëpp ànd ak moom ba mu toog ci lalam ba rek yaqudu ala alxasbi ah bi mulkin ila ataw xataa yadullahu ku dikk rek mu toroxal duma rek boole ci nguuram rek lan maanaam ñu njaabal ko nag benn tappi farsaqan fi farsaqin dahaban fi ibri simin min adahabi wa talbisaati fa yaqudu alayhi wa xawlahu salaatu alafi kursiyin aw yaay kii ma bëri nguur ñetti téeméeri waaw waaw waaw ala karatin fiddati wa xawlu naas wa xawlu naas jinni wa shayatin yàlla moo bëri nguur waay waaw xataa yaqa ali shamsun wa yarfa rixu sadal bi faat ila rawaaxi la ilaha illallah ne wax sa nag nee na lama staxalat nabiyullahi suleyman al xayl dañu tuuti waay lama tas lama chaxla nabi ilaahi suleymaan al xayl xata faada saatu asri xam ne moom la ñu wàcce woon ci jul tàkkusaan te ku bëggoon naaru góor la mu dem ca naaru góor yi nag di visité di toppatoo di visité toppatoo ba tàkkusaan ja paase bi tàkkusaan paase nag ñu ne ko bëkk ni bi ne ko ah yow kat li ngay dox yépp sàkkusaan julli nañ ko war nga koo julli bu yàgg te paas na jant baa ngi bëgg a so mu mer nag cor dag dag waaw mu mer ngir yàlla rek ka aqala xayra fa abdalahu allahu makaana xayra minha wa asa reexe bi amrihi kayfa shaa waaw waaw moom la ko yàlla fayee ngelaw loolee waaw waaw waaw suma yarooxu minha fa yakunu rawaax rawaaxa bi baabila wa rawaaxa sharun rek mashriqan wa maghriban aw waaw waaw وما رسالته فكان لبني سالم سليمان دي موتا فونك يالام جوجو رك لم كو فاي رك با مو ري فاسي تيمري فاس لا با فاسي تيمري فاس لا مو ري فاسي دي ري دي ري با كنيك با نيب بن فاس وا موم رال الواج بو لو الواج كوكاي تمام waye bu fekkoon ni rayal woon yëpp par rek nga gis ci àdduna waaye bëkk néeg ba moom muus nag ba muy lay ba rey juróom-ñeent fukk juróom-ñeent benn fee ko ma téeméer ba faf ko nëbb ba mu ko nëbbee nag mu defee reyaale na ko kooku mooy maami élevage yëpp waaw ba léegi yàlla nag ni ko nag fas si nga rey ngir sama jëmm ak takkusaan bi ma la joxoon ko war ko julli naa la ko fay itam ngelaw loo xam ni loo war a dox ci weer genn wàll bés nga koy dox loo war a dox ci weer nga da nga koy gont moo tax ba mu dajeeg mun siratu mu nu yoon teeg moom ni ko yaay kanwaay mu ne ko may Suleymaan Souleymane bun Daawuda mu ne ko aha mu ne ko maay ki nga xam ne maa moom lépp maa moom adduna bi yëpp jinneeg njanaaw ak ñëpp sama disposition la ñu ne mu ne ko ah waaye Souleymane yow sa nguur gi jeex na bari na di mu ne ko waaw mu ne ko waaw ak lan mu ne ko lu ñu war a dox ci weer lu ñu war a dox ci weer dama koy gont lu ñu war a dox ci weer dama koy xëy mu ne ko waaw mu ni ko itam ak loo xam ne maa ngi koy tiitaroo mooy jox nañu benn tàppi boo xam ne aljana la jóge dama koy lal ci ngelaw rek toog ci fa ma bëgg dem dem fa mu ni ko ak lan ak mu ni ko ak di wéttali ko nag turu yàlla ci mu ni ko turu mooy lan mu ni mooy ismu mu ni ko Souleymane yaa ma bett waaw mu ni ko waaye yow mi may laaj nag yow mun siratu nag yow yaakaar mu ni ko may mun siratu mu ni ko luy mun siratu mu ni ko damaa mën a waare bañ tuddee ma aji waare mu ni ko lu tax nga ñuul nii mu ni ko àdduna di kër musiba moo tax ma faf ñuul ci këru musiba mi mu ne ko sa tànk li lu ko tax a tuuti mu ne ko jaamu yàlla laxasoo moo ne jaamu yàlla moo ko tax a tuuti mu ne ko waaw ndax am nga loolu njëlif mu ne waaye am naa juróom-ñaar fukki junni kàng kàng mu ne gisul juróom-ñaar fukki junni xorondom mu ne ko waaw dama bëggoon nag man Souleymane nga wax ma loo gën a bëgg mu ne ko li ma bëgg amuloo ko mu ne ko wax ma rek mu ne ko dama bëgg maa nga am nanga mi junni ci magasin ci dugub ak ceeb loo soxla ma jox la ko mu ne ko soxlawu ma ko mu ne ko loo soxla mu ne ko naa bëgg nga yokk sama fan mu ne ko ah loolu de mënuma ko mu ne ko waxoon naa li mu bëgg mënu la ko waaw Souleymane gis naa la ngay tiitaroo aloo tiitaroo nga ni ngelaw loo xam ne yàlla la ko jox taal janna loo wax loo war a dox ci weer da nga koy gont loo war a xëy da nga koy gont xam nga loolu li ci yàlla jubloo mu ne ko déedéet mu ne ko da nga xam ne sungur gi kenn ngelaw la léegi mu jeex ñu di ko def la nga dem bu yàgg kooku jarul tiitaroo gis naa itam nga naan da ngay tiitaroo ismullahi lazam ma yaa ma bett man defoon naa ne musamma bi ngay tiitaroo waaye tiitaroo ismu bi Souleymane su nga xam ni kii nag yàllaa ko pour mu weddam loo ko ak jajju ne du xoromu kese ne nee na nag ah waaw waaw Abu Bakar damay jàngal Baye Dame Dramé muñitul murid maa ngi amee buxyatul mustafid mooy sharxaba bi mu ñëw ci ngela tariqa bi ci laay jooju hada ataauna famnun awam sig bi xayri xisaab hada lii ataauna sunu maya nun yàlla famnun xéewéel awam sig wala nga téye bi xayri xisaab maa nga sin baa ngoog marchandise maa ngoog ceebi jaa ngoog yaa ngoog ak unfiq bilaal wala taxsha min dil arshi ak laal ak la xaris wax ji ni bilaal joxeel yàlla ma jox tuddu jeexal ma ni bàyyi daan dégguma sa bind bi may ma ba ëllëg ñu daje fi mu julli tàkkusaan ba def li may def ba pare ñëw nag di seet si góor gi fekk ko njaasaan maa ngi ko fekk ci fëtëy bu xonq ba ca pereng ba moom dong mi ngi sol tulki dara ba ne kaare ay ka bu weex fa baaraam bi matt ko ci sàkkal yàlla wu jekk wa ak tegg ja ak jegg ja xalifa yàkkamtiwul dara foo ko fekk mën na dem makka tekk dégg rek ma ne assalaamu aleykum mu ni tekk ma ne ti assalaamu aleykum mu ni tekk ma ne ci sama xol ah ñaara nga de benn ma desi kon ana fonk bi ma desi comme bu ñettee kenn wuyu ma dama war a dellu ma ne assalaamu aleykum mu ne aleykum salaam muuñ ni ma yaa njaxlaf mu ne soo fa ëmm si njaxlafam googu rek laa lay xoole ma ñëw boobu ci kanamam ni ko man papa dama doon jàngale gat mu ne ma ci gan fànn mu ne ko ci mbirum tarixa bi la mu ne ma xanaa hada ataauna la wallahi tallahi mu ne ko man gàggantiku naa mu ne ma aha ma ne ko damay jàngal bàyyi daam daraani mi ngi ma boole loon mu nitul murid ma ñëw ba ci laay ji mu ne hada ataauna fam nun awam si bi xeyri xisaab cheikh doon na ko ci muhammad te alquran ci muhammad lañ ko wàcce wàccewuñ ko ci cheikh may laaj nag kan la ko donn ak nam ko donneeg donneen wax fekk naa ko mu wéeru de mu ñëw ba sikki mu ma fam ñaar loxoom jatu tiim ma nii wallahi sunu li ma ko miin sunu woon li ma ko miin danaa ko bàyyeeg saal bi ak parang bi mu ne ma lu la jaaxal ci laay ji dangaa defe dafa mën la am am dafa neex bëpp ma ne ko daf maa jaaxal rek mu ne ma gis nga li gën a gàtt laay jooju la jaaxal ak xaris jooju cheikh jox na ko samaam samaam jox na ma ko tey ba ëllëg ku ma jox da nga ko yëg ku ma xañ da nga ko yëg man tarixa bi li ci aju ci doole kenn mënu ko wax ndax li yonent bi defaloon di yàlla defaloon Muhammad lu mu joxoon yonent la ca gën a rafet mu fab ko booleeg la mu ko joxaat jox ko ko noonu la cheikh itam mel ca maamam la fa ba lépp wiire ko ko mu fab lépp wiire ko tarixa bi sëf ko ko moo tarixa bi ku ci nekk di sent leneen wala ngay xool feneen wallahi taalaay ren di rek a gën ci yow ku sédd gëmmuwaay ñàkk fu la rek cam am laa ko am ceeb bu jën bu xonq coy ñu lay xobe laa ko caaxaan ak yi laa ko daqaar fa tabaraka law samiatal awala fiye jiddan te ka du ma koy wax soxla wax ko ci man gis naa fa seen xanamul xaw mi doo teg sama waay est ce que waaw waay sama waay loo teg waay dama bëgg a dem waay waalam na xamal nu ko seen ata la boosin xaralu koŋ lakum ñee leen yéen nit ñi waaw wasaxanaa tàggal nanu Souleymane Souleymane arriixa ngelaw lu mu teg ah hein waaw juróom ñett fukk ak juróom waaw kay waaw ñu woon ci Souleymane was ba wa tàggatal nanu Souleymane Souleymane riyaxa gelaw aasifa na muy aji ruddi loo xam te ji dina daw nag bi am rihi ci ndigalu yàlla ila ab dem ci dëkk lati ba nga xam ne baarak naa barkeel nanu fiyaa ca dëkk ba wukku naa nekkoon nanu aalimina di way xam bi kulli seen ci lépp lëf wa tàggatal na ba tey min a cheytaani ci chayaatin yi man ñoo xam ni yaxoo suuna dañu xuus loxoo ñeel Suleymaan dugg ci géej génneel ko wurus wa yaamaloona ñuy jëf amalan jëf doona daalika lu lu du wute xuus ga wukku naa nekk nu yàlla xaafisina di way wattu loxoom ñeeleen nañ yafsadoo maa amiloo li anam kaano ida faragoo min amalin qabla leyli afsadoohu ñu daal di ko yàq war na nga fàtte sëñ ba tey ayoba ayoba is naadee ba mu woowee rabbahu boroomam ca nattu ga naan kan an ne massani indi nag aman massani laal na ma durra tartar wa ante yow yàlla arhamu rahimina yee aji yërëm wa yërëm ña fastajab naa nag nu nangu ak nu wuyu loo ñeel ko ñi daawa wooteem fa kachaf naa nu wuññi maa lépp loo xam ni bii mi ngi ci moom min dorrin ci lor wa aataynaahu ñu jox ko ahlahu doom yu bari yu góor ah doom yu góor rekk de wal inaasa ak jigéen bi anna xayyoo lahoo wa kullu min sunfeni salasin aw sab'an wa mislahum ak képp